loolu saa yi loolu mooy wax ji jeex na maanaam Wally Seck mu ngi may dégg c'est un frère je xam naa wax ji dina leen dajj nag mais c'est pas un Guinéen ni un Malien c'est un si on collabore un jour avec avec Wally Seck c'est très normal parce que c'est un artiste en fait sa waay ñun aspect bi ñuy demee c'est positif c'est pas négatif ñun on prône sur la positivité tey Wally bu bëggee xëy bëgg liggéey ak suba teel woo nañ ko ñëwal grand frère mu ñëw liggéey su soxlaa production bi suba teel ñëwal su soxlaa collaboration de featuring avec benn artiste bi suba teel il est le bienvenu yeah il est le bienvenu ñun mosuñu concurrence an teg Wally Seck nous fait de la musique soo gis artiste suba teel bu taxaw wax Wally Seck A wala B te dañ koy féliciter de passage parce que c'est un bon sœur liggéey liggéeykat la mu ngi liggéey nekk wàllam di liggéey ñun ñu ngi suñu côté di liggéey donc nous tous nous sommes des frères sénégalais yuy liggéey amuñu problème ak moom te àdduna du neex ñaanuñu yàlla am problème ak moom xëy na nit ñi ñoo bëgg xam nga di gis problème wala parfois presse bi am ñoo xam ne dañuy bëgg a jaay seen article mais defe naa ne problème amu fi ah voilà donc comme sa question te Wally Seck est-ce que tey bu bëggoon liggéey ñun pare nañ pare nañ bu doon suba suba suba na ñëw na fekk rek que la ñu war a liggéey mu arrangé ñu arrangé ko on le fera incha